on, on, va demander ce qu'on à apprendre sur, les langues et communications et les français. Oui, oui. On vous a Comme les agents sont comportent avec les élèves, avec les maladies. Sur le coronavirus Oui. tey si ak euh, euh, waa éducation IEF ak euh, parents d'élèves yi ak les syndicats pour ñëw gisal suñu bopp ni épreuve euh, tey la ñu war a door te li ñu wisitagum xel dal na parce que def nañu juróomi école ñu nga xamante ni euh, liñ fa gis euh, dal na suñu xel ndaxte enseignant yi daana ko li ci ëpp ñoo fa élèves aussi su amee absent lu néew la donc commencé nañ ko si si jàmm dañuy ñaan suñu borom ñu àggale ko si si si jàmm donc li ñuy li ñuy wax rek mooy ñu leen di fàttali di woon wax ni Euh, maladie bi euh, mi ngi mi ngi fi pandémie muy Covid 19 mi ngi fi fu fépp fu jaar fàttali nañ ko fa yéen comme noonu la bu fas yéene dëkk ñun bañ a dem ñun tam ñu jël suñu matukaay rek pour pour que mu bañ mu dal matukaay bi nag li si li si li si euh, kii mooy le port des masques yàlla def na inspecteur si suba xëy na joxe ay masques masques yëpp doy na ba paneen bi mooy li si des mooy xanaa ku ku ñibbeet bala ngay dem sa kër nga raxasu. waaw ah, donc loolu daal moo moo moo doon li am solo si si ndaje mi. Euh, lu ma bëgg wax mooy sooy xoolee Mbàkke tey bokk na ci circonscription yi nga xam ni ñoo gën a bare lu ñu présenté ñoo ñoo ëpp lu ñu présenté ci ndongo yi def tey examen ci Sénégal bokk na ci du moom mooy bu njëkk mais bokk na ci ñoo nga xam ni seen lim takku na donc dafa nekk euh, juróom-ñaari junni ak euh, ñett ñetti téeméer ak juróom fukk. donc muy 3750 loolu donc loolu nombre bu am solo te loolu boo xool jigéen ñi am nañ ci taxawaay bu bare mooy juróomi junni ak euh, juróom fukk ak fukk ñett juróom donc mu nekk lim téeméer boo jël daanaka fukk ak juróom-ñett yi di may juróom fukk ak euh, juróom benn fukki ak juróom-ñett yëpp ay jigéen lañ donc loolu mu nekk lim bu am solo ren nag lu ñu gën a saytu mooy tamit ñu xool ni booy xool xale yi fu ñuy jàngee fu ñuy defee examen. Euh, fanweer centre la ak ñett mais ci fanweer centre yi ñett fukk ak juróom-benn yëpp Touba lañ nekk donc loolu mu nekk lim bu am solo te ñooñu nekk Touba centre yi nekk Touba booy xoolee xale yu ñu jël yi nekk na 3876 maanaam mu nekk ñetti junni ak euh, juróom-ñetti téeméer ak euh, lu topp donc loolu mu nekk lim bu am solo ci fi nga xam ni peut-être am na ay at yu weesu xëy na lu fa doon présente daawul bare. donc mu am mu nekk jéego yu am solo yoo xam ne ñoo ngi koy def te boo gisee jéego yi am dafa fekk ñoo ngi mettre en place ay école à transport yoo xam ne xale yi mën nañ jóge Touba ni privé bi tamit mi ngi bu baax foofu donc loolu ñu koy rafetlu bu baax a a baax di ñaan privé yi defal leen dimbal pour que seen mission ñu ko matal te loolu doyul fu mu nekk tamit ñun dañuy liggéey pour xool tamit ñu a mën a def ba def yi à Touba nekk modèle yu adapté am na franco arabe yi ñu fa def parce que franco arabe yi tey def na fukki at ak juróom bañ koy sasek léegi te franco arabe booy xool am na lu mat euh, deux mille cinq cent lu ko ëpp ci ndongo yu présenté wu donc loolu am na solo mais dañu ni loolu lim boobu mën na yokk su fekkee ne am na ay mesures yu ñu jël mesures yi mooy ñu xoolaat franco arabe yi ni ñu koy gën a mën a tëggee ba mu gën a répondre ak euh, aspiration population tëgg bi mooy france bi baax na arabe bi baax na mais ñu gën a dooleel éducation religieuse donc loolu bi nga defee gis nañu ni mën na gën a tax jàng franco arabe bi dox leneen li mooy infrastructure yi fu toll na Mbàkke xam nga boo ne EFA daanaka fii mooy capital boo koy xool daanaka ndax bëri na ay école EFA bëri na peut-être ay élémentaire CMI ñaar la mais amul lycée bu ko defee ñu bëri daan jàng ba egg am defem mais après seen jàng arrêté loolu nag day nekk loo xam ne mën na décourager population yi parce que naa ma dañ naan li soo jógee aussi du am du am mujj doo mujj donc loolu ñuy ñaan aussi autorité yi ñu taxawuñ ci ba nga xam nu mu gën a gaawee ñu mën a fi am benn euh, lycée pour que loolu gën a jëm kanam incha allah donc loolu lépp dañ ciy insister pour dire que au niveau de Mbacké quand même affaire yaa ngi dox bu baax te buy dox ñëpp a ngi ci jàpp muy parents d'élèves parce que fii sooy jàng laaj na ay moyens surtout bu dee Touba nga xam ne il faut que sa doom nga fayal ko muy dem transport di ñëw donc parents yi taxaw ci loolu pour loolu mën a nekk moo tax ñu ngi leen ciy gërëm di leen sant di wax ni wax dëgg muy G7 bi parce que ñoom it taxawaay bu rafet lañ ci def di def mission de même di suggérer def ay conseil pour lépp ñu am jàmm ci dëkk bi te loolu moo fi am wax dëgg yàlla boobaak léegi jàmm rek la ñuy dox moo tax fii am na jàmm te loolu day tax njàng mi gën a dox leneen li mooy suñu collaborateurs yi nga xam ne mooy inspecteurs yi agents yi nga xam ne ñoo ngi ci bureau yi di liggéey ñooñu aussi maa ngi leen di beral félicitation di leen di am kontaan ci ñoom di kontaan aussi ci taxawkaay jàngalekat yi jàngalekat aussi vraiment les féliciter fu ñu jaar tey monsieur le préfet wax na ko léegi gis nañ ñoom ñëpp ñëw nañu teew ngir mën a tax ba examen yi jaar ci yoon donc loolu aussi ñu ngi koy rafetlu bu a a baax mooy remercier aussi suñu autorité administrative yi parce que constamment ñoom ñu ngi jàppale pour liggéey bi jëm ci kanam remercier également maire yi seen taxawaay rafet na trop tey booy xool nii même ci centre en milieu rural li nga xam ne mooy wàllu hébergement restauration commission ñoom ñoo ko jël en charge donc loolu aussi ñu koy rafetlu ni ñoom it affaire éducation ñor na leen donc loolu lépp boo ko boolee daf ñu jox mbégte di ñaana xale yi nag yàlla defal leen jàmm ñu am ndam ci li ñu dëgmal incha